ne tey dañ fi ñëw ndaxte ñoo naroon ànd ak ak euh, ministre de la jeunesse culture parce que moo amoon yéene donc ñëwal boppam ndaxte comité bi yow na yebaloon na secrétaire d'état ne moom day bàyyi ba final bi waaye nag jaam ak bëgg-bëggam borom mooy dogal mu am ay ngant après suñu woon nañ nañu ko teewal teewal gouvernement bu Sénégal yëpp ci gën a nemmeeku rek mooy rafetlu d'abord li nga xam ne moom lañ tànn jaaree waaye également ONCAV ni nga xam ne noonu la ko fexe ba ci euh, ñett département yëpp ku nekk amoon na ci ay festivités muy Bambey Diourbel ak Mbacké donc nañ ko defee tamit amu benn coow donc yaakaar naa ne compétition yi jaar na ci yoon ci benn benn jafe-jafe te gis nañ également askan askanu région bu Diourbel génn nañ gunge ci ndax wuyu si nañ chaque jour foog naa ne stade bi fees waaye tey jii nag euh, ñu ci jeexital bi muy final bi nga xam ne moo war a opposé ñaari équipe benn équipe bu Njàmbur bu Louga muy ASC Beñ ak bu Dakar ASC lañ gisagum ci tàmbali bi moom lay ñaan mu eggali ndax gis nañ ne ko def si xel bu ak fair play ndax bawal na sport moo ànd ak lool tey nga gagné si ba nga ñaan mais nga ñaan rek ku gën ci borom bi rek kooku borom na nañ ko jox donc jaajëf ak équipe bi nga xam ne ñoom ñoo ko gunge ba ñu ko def ci anam bi nga xam mu ci ayab bi di fekk dana ñu tàmbali di sant bu baax a baax président ANCAR muy Amadou Kane donc war a équipe bi àndal ak taamu bi taamu région de Diourbel ci biir phase nationale bi loolu mbégte la ak contentement boo xam am na tàmbalikat bi ak yóbbukaay ndax lii mënaan la fête la fête nationale la boo xamante ni bépp région bu ñu ko dégleel région boobu ubbiwul fay ORCAV ubbiwul fay ONCAV kon tàmbalima boobu mooy tàmbalima ak ngërëm di sant yàlla nag bu ñu ko tàmbalee ci suñu laarabaay nan ko yeggal ci alhamdulilah rabbil alamin

sport wut ànd ak violence ndax bu ñuy wax nawetaan ñu ci bëri bëri bu seen doom tàggoo nañu def sax dañu tiit te loolu amul place équipe bu football moom ñaar la kenn day gañe kenn perte wala mu suñu nam bal ku gañe war naa félicité ki ñu gañe wala mu encouragé ñu dem ndam lu gënlu daal ndax bu ñu koy tàmbali sama équipe boobu bu bu ay sopas su ma gañe mooy final mais dañ leen encouragé yow leen ci benn bu ëllëgee mën nga final tey ci équipe bu bu mooy final ak équipe bu Dakar day ñaan yàlla ndam li mu ko jël Sénégal bu doo gañe Sénégal moo gañe bu Dakar gañe Sénégal moo gañe tey jii muy Bara Gaye bi maire Moustapha Diop bi tey jii bu ma si jéem a ñaar ngay joxoon loxo seen équipe joxoon loxo bi loolu mooy suba kon li ma a ne nawetaan violence amul si place amul kon loolu yëpp bis bu yàlla sax président de la république loolu la premier ministre loolu digg a ministre sport loolu digg kon bi dara ñu ne sans violence amul benn daan bañ loolu la ñaan yàlla léegi ngeen te ku ci nekk xam ne ren bi am na Sonacos match yoo xam ne mën na ko recevoir ci stade bi kon sëñ bi dañuy jàppale tuuti doléance boobu dama koy jàll wala par ñu ñu ko dafa déggaat mais maire bi duñ ko dégg ñu xool nan la ñu mën a defee ñaari tribune ndax tey ji musiba la ñaari ASC ku ci nekk di recevoir kon jàpp naa war nañu am beneen tribune boo xam ne dina mën a déglu nawet gëm naa ne au niveau de restaurant Diourbel war nañu am stade boo xam ne liñ ko nar euh, muy bare débat daf ko teg ndax équipe nationale Sénégal sax Diourbel recevoir ku jëmbu leen kon jàpp naa ne loolu dana yàq boo xam ndax Diourbel bi ñuy football dañoo bëgg football kon jàpp naa ñoom dañu naan wax état bi dañu ko dégg ndax gëm nañ seen deux mille neuf moo ko deux mille neuf balaa nguur gi jeex Sénégal war na organiser daal bu ko doon daal kii nee woon na kii di sax coupe d'Afrique nationale Sénégal war na ko organiser te loolu jubal am na ci place foofu la dafay nekk dara nit ñi keneen am ay bëgg-bëgg football dafa bokk ci bëgg-bëgg yi xam ne dama ko yàgg si mu yàgg ko bàyyi ma juddoo ci milieu boo xam ne am ay seulement bàyyi ko ay soxaas bokk naa ci njëkk inspiré ay soxaas si Oréga Mbacke pour ñu nekk nawet daal équipe bi yàlla dogal ma nekk président yàlla dogal na ren participé nañ ci phase finale kilifa yi ci c'est la première fois équipe Touba ñu bokk ci bay dem huitième de finale dañ ñoo forme la espoir boo forodee fa la forme ay dal ndax loo xamante ne ay nit ñi koy def di yóbbu seen waajur mag di dimbale seen waajur dimbale seen famille kon loolu du foofu kon jàpp naa ne ñi ciy nekk war nañoo bëri nekk ay responsable ndax lu nekk moo ci bokk kon jàpp naa ne daal dañuy wax ne bëgg-bëgg mais ni ñu ko tàmbalee di jaral ko jaral dara baal di ñaanal Abdoulaye Fall ndax sax la ci région bi ñu bay mais sax la ci département Mbacké kon dañ koy ñaanal yàlla lépp lu mu mën a def bu déwénee mu mën lu ko yéene yi am ci région bi ñu bay am ko ci département Mbacké yàlla moo tax yéene yi am ko ci Sénégal suuf gërëm yàlla gërëm yàlla bu baax mais sant aussi waa nawetaan yëpp commencé président ORCAV membre comité directeur ONCAV président ODCAV bi président zone président ASC e. de partout on est suivi mais gërëm aussi le président de la république parce que keroog bu ñu buggee def phase yi maatam ñoom la ñu bind ñoom ñoo joxe instruction CRD yi ak CDD yi am yëpp noonu la premier ministre aussi moom la ñu buggoon mu ñëw lancer phase yi mënu la ñëw mais mu envoyé une forte délégation madame le ministre des sports mais le gouverneur qui était là et tous les préfets remercier aussi di gërëm suñu parrain l'honorable député Cheikh Soro Mbacké mais aussi di gërëm Abdoulaye Fall qui est le tey jii nii mën nañu wax ne phase populaire yi nii dañoo ko gis xam nga daaw bu ñu joxee Kaffrine dañu waxoon ne dafay jafe ñu dépassé Kaffrine du point de vue moyen xëy na Kaffrine la mais du point de vue mobilisation mën nañu wax ne raw ce qui s'est passé à Mbacké à dafay jafe loolu moo tax ñu kontaan mais aussi gërëm la presse parce que tey jii di li ñu def yëpp ñu ngi yaa ngi koy gis tout à l'heure sabu doom moomu doon woo mu ne papa maa ngi lay seetaan ce qui viennent de Kédougou de Matam de partout seen famille ñu ngi leen doon seetaan léegi lu muy wane mooy que journalistes suñu collaborateur lañ suñu partenaire lañ maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne tamit musul nekk suñu xel tere benn journaliste benn télé wala benn rajo diffuser ce qu'on est en train de faire déedéet dañu wax ne na ñëw waxtaan ñu xool nan lañ ko organiser pour que journaliste bi mën a si gagné nit ñi gagné nañu si déjà parce que soo leen seetaan partout dans le monde donc loolu dafay wane ne que lënk bi ñu am entre ñun ak presse bi a continuer en tout cas gërëm nañ ñëpp tey jii bi mën naa wax ne lu am tey fii wala lu am ba tey stade bi di fees sant yalla bu baax léegi nag wax nañu ko gouverneur bi wax nañ ko l'honorable député nee nañ ko stade bi ma gis nii bëgg naa ñu améliorer ko parce que stade bi même su dee amul phase nationale dafay jafe mu mun a continuer waa nawetaan euh, Mbacké dafay tuuti gouverneur nee na noté na ko dina wax ne kii du droit honorable député wax na ko autorités yi nekkoon yëpp alors di ñaan yàlla jàmm am si Sénégal xam nga tey jii lii mun naa wax ne ñu ñu ngi dem si jeexalu suñu mandat commencé zone yi ODCAV yi ODCAV yi ak ONCAV def nañ comité directeur d' accord dañ ko dañuy renouveler ONCAV dina def calendrier ci biir li ñu def calendrier la ñu décider fan la ñu a dem tey jii fu may waxanteeg yow am na dèjà Ziguinchor bu nekk candidat fu may waxanteeg yow Thiès est dèjà candidat nekkul ne balaa boobu dina am région yi waxtaan seen biir c'est tout à l'avenir le maire de Louga bu mu jóge fi dégg ngeen ko dégg ngeen yëpp mu naan ñëw leen déwén Louga mais loolu yëpp dinañ toog organiser ko seet nañ lañ def mais ni ñu gis ne quinze jours la ñu organiser lu mat soixante trois match loolu dafa jafe soo xoolee même CAF ay un mois la koy def loolu moo tax ñu ñu nga jënañ junñ xalaat ndax duñu mën a séparer phase yi def de côté phase culturelle et scientifique bu nga xam ne ne théâtre bi ak université bi beneen côté bi ñu def si phase sport bu nga xam ne football lay am ak yeneen discipline en tout cas suñu xol sedd na ñu ngi gërëm population Bawol yëpp gis nañu nit ñu teere ni ñu accueillir ñu sentir ne que les gens attendaient des phases Mbacké tout le monde est d'accord au-delà du fait se le plus grand département ñëpp d'accord nañu ñu bëgg football lañu loolu moo tax ñu ñaan stade bi ñu war yaatalaat pour la population yàlla yàlla def jàmm yàlla may ñu fekkee incha allah jàmm ak salaam